maam tur beeg sant laa tudd Ndaak laa tudd sant mu mel ne yow. dëkk fii ci Madiana waaw. Eh, sama mu mel ne yow fii nga doon jaayee di fi di fi naan doole xew-xew bi bi nga ko nan nga ko xew-xew bi bi ma ko yëgee jaaxle rek nag ndax fii laa doon dund maak samay moroom di fi wut luñ tedde te bëggunoo def dara lu naqari yàlla nekk ci Touba gii di ci tedd di ci teral suñu ngeboot biig ci guddi bi ñu ma wooyee téléphone samay doom yu góor ci lañ dawee foofu di ma woo ki ma taxalool place ndax ku ci dama am sa numéro mu ne ma yaay soo bëggee dégg-dëgg mën a ah, kaa mu ne ma marché bi jeex na dara desu fi ma téléphoné samay doom ne leen waññeeku leen ngeen ñibbisi ginnaaw jeex na jëlu ngeen dem ci guddi gi ñoom léegi lañ fi jógee nii ñu ngi taxawoon fii ci sooba tey dend ak man man ne yéen dem leen ñibbi bàyyi ma fi man ma toog waaye xanaa ñuy ñaan yàlla rek ñuy ñaan rek yàlla yemale ko fi ndax metti na nag ndax la ko daaw jégg yi ñun ci lan bokkoon nii lan defoon ren mu def nii waaye ñuy ñaan yàlla yemale ko fi ndax metti na waaye am na lu ko gën a metti ndax bakkan a gën a metti yaa mën a wut liggéey waaye bu sa bakkan ba dee dootoo talatee wut dara di ñaan rek nag mu yem fi di ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi te dimbale nu ci lii. lan ngeen yaakaar ne fii moo waral lakk bi ba at bu jot wala guddi bu jot ñu jékki-jékki. te lakk bi benn heure rek la mën a am. mooy ñun koy looloo nu jaaxal fi mu ne loolooy suñu problème yow mënoo ne courant ko taal mënoo ne nite ko taal mënoo ne kenn ko taal yow dangay tëdd dong ba guddi ñu wala téléphone ne ñu marché baa ngay lakk lakk gu gi fii keroog bañ ko waxee suñ ñëpp dañoo daw ci guddi gi ñëw biig nag biñ dawee ñëw ba ci yoon bi bañ ma xamalee ne nun fii jeex na moom laa woo man samay waa kër ma ñëkku leen ñoom ñëpp ñu ngi fi woon léegi lañ fi jóge nii ñibbi waaye noo ngi sant yàlla rek ñuy sant yàlla rek loolu liñ ko santoon maa tiit rek te jaaxle nag géde laa dëkk nag dawa naa géde ba tëli sëñ Bass Abdou Khadir benn oto moom a andi waaye ba ma ñëwee dañ doo dugg waaye nag fii moom moo doonoon sama place dëgg yàlla moom metti na mu mel ne fan yi marché bi loolu lim fi am bëri na lu mat maanaam diirum ñetti at yi bi mën naa ne duñ toog ay ay ay ay waxtu wala ay fan yu ne marché bi mi ngi lakk léen yéen ñi xam ne jigéen di fi daan doole ana lan ngeen di sàpp ñu dimbale leen xanaa dimbale si ngir yàlla wutal ñu kaaraange ndax lii metti na ndax an man lakke woon daa dellusiwaat suñu bagage si lakk te ñun jigéen ñi li ñuy liggéey ñu ko dañ koy leb dong di ko teg ci suñ place yi ñoo ngi nii nag jaaxle ku ñu dimbale bi am kaaraanga te yàlla dimbale ñu may ñu fun ko la di dañuy sant ndax sonn nanu te jaaxle nanu te ay jigéen dong lan nag lii ñu def suñ place bi lii lekk lépp dañ koy leb moomuñu si dara ñu sàkku ndimbal nag ku dimbale yi ñu jël waaw li nga xamoon wàllu organisation ci marché bi comme wax nañ ay fan yee dégg nañ for nañ ci wewu bëy ñu ne yéen xam ne yéen a nekk ci kaw tali bi wala fii nii yëpp ñi ngi leen doon waaj a wutal feneen loolu ana lan nga ci def comme xalaat. ah man de dañ ne sëñ bi nee na le vingt le vingt le vingt ñu nekk fii ñëpp nañ fi jóge te ñun ay taalibe dong la ndigal la ni wéy le vingt quatre nag nooruñu foon a fekk. man la wee dama ne woon fu mu jot ma jël samay bagages yëpp dem yóbbu ko sama kër di déglu ndigal. lan ngay sàkk ci li nga xam ne moom moo di ki nga xam ne moom lañ dénk euh, dëkk bi di Touba muy maire bi mu dimbale leen rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo si doon daan seen doole sàcc ñu fenuñu xanaa mu dimbale ñu ngir yàlla wutal ñu ay kant ñu teg man fee daan suñ doole ndax wax dëgg yàlla nag sonn nan te xale yu góor itam waa marché ambulant yi ñoom ñëpp sonn si lañ yor seen i njaboot yor si seen yaay yor seen jabar ñu jàppale ñu te dimbale ñu ndax ñun ñi jigéen leen waaye dañoo yor suñuy kër. Omar Diallo Touba Massogas euh, di nuyu ñëpp di ba di baalu ak ñëpp ah di amaat aw tiis ñu daal suñu kaw tay bi ñu xëyee muy fi xam ne fi leen doon liggéeyee doon fi sàkku lu lew suñu borom indiwaat natt bi tegal ko suñu kaw mu mel ne mi ngi bëgg mi mi mi ngi bëgg bari lu muy am léegi nag il est temps ñu xool lan mooy war a lakk lan mooy parce que lu am am amaat am amaat ngir bu amee amaat amaat jàpp na ñi nga xam ne ñoom noonu dénk dëkk bi war na ñoo taxaw jàngat def fa biir nekk xool lan mooy waral lii parce que ay ndaw ñoo fi ne yoo xam si ne dama ci dëkk bi socc ñu di daan di daan doole nekk ci dëkk bi di liggéey di ñàkk di dundalu di si joxe ay Serigne Touba di ci liggéey kon bu lii amee jàpp naa ne ñi xam ne ñoom ñooy kilifa ci war na taxaw nag xool lan moo ko waral dimbaliwaat ñii parce que ñi ay ndaw lan dëkk bi comme ni ma ko waxee laa ko amut géej amul ndox amul usine amul dara fii lan am muy marché Ocass fi la ñuy daane suñu doole fi la ñuy sàkkale yor suñu njaboot kon ñi ngi sàkkuwaat ñu ñu dimbali ñu ñu dimbali ñu ñu koy sàkkuwaat. li ngay comme bi chaque mën naa ne même heure lay doon te di deuxièmement kenn du am du am après euh, enquête amul dara lu mu teg. waaw lool loolu day wane rek. day wane rek ñàkk yëg pour man parce que mbir bu amee amaat war nañoo def constat xool lan mooy war a mbir mi parce que yaakaar naa ne comme bu njëkk man lan waxoon la ñuy wax rek. maasalaas bu takkee war nañoo xool lan moo ko taal war nañoo constaté fee yi xam lan moo ko taal ba ba ëllëgee mu bañ ñoo dalaat parce que lii nit licence lay bëgg a nuru xam nga amoon na amat léegi pourquoi mënu ñëw taxaw xool lan moo waral affaire yi bu dee ay branchement yu bokkul ñu xam ne ay branchement yu bokkul la ah nit ko wax ak ah bu dee leneen tamit ñu xool lan moo koy waral bu dee mbedd mi lañu organiser mbedd mi ah vraiment affaire daal yéen ñi nga xam ne ay marchand ambulant ngeen ni ngeen koy waxee di fi lal di fi daan doole ban taxawaay ngeen fas yéene am ci li nga xam ne moom moo ci xew. waaw ñun moom ay marchand ambulant lan comme ni nga ko waxee si lañu nekk di daan doole du ñu amul lu ñu gënal nag ku sañoon doo toog fi si kaw si diggu mbedd mais ñàkk pexe moo tax ñu toog fi waaw ñun nag amuñu benn pexe wax dëgg yàlla parce que ñoo gën a néew doole si dëkk pour man ñun daal dañuy ñaan rek suñu borom dañuy ñaan rek ñi nga xam ne ñoo ñu mën a dimbali ñu dimbali ñu ñu organiser ñu parce que bu ñu organiser rek jàpp naa ne coow yàgg na bu ñu organiser rek coow du am lan ngeen di sàkku ñu dimbale leen. waaw dimbal ci béréb bi rawatina situation bi. waaw loolu nag dañ ko yëg comme ni ñu ko yëgee rek. waaw duñ ko yëg comme ni ko yëgee mais damaa jàpp ne xalifa bi ñu ñëpp ak njabootam lan ni muy comme fu mbir am ci Sénégal rek day jël alalam ndef ci ah kon nag jàpp naa bu mbir amee ci biir këram dañ dañ ci seen yërmande sa yaakaar naa dana am incha allahu rabbi parce que njaboot gi ak njabootam lan ñoo ngi sàkku daal yërmande lay sàkku ak ndimbal ak organisation ñuy woo maire Abdou Lahad Ka na xam na njaboot gi ak njabootam lan na jàppale xale yi Touba yi parce que am na xale yu am jom am na xale yu nangoo liggéey jàpp naa ne sëriñ Touba ku leen am war ngay tee sa sa sa juróom waaw moom man wax yàlla gisuma ko du ne ñëwul waaye man gisuma ko léegi bu fekkee fekkee def na li bu ñëw timit eseng na parce que dëkk bi sëñ bi da jël teg ko ci loxoom waaw ñoo ngi ñoo ngi koy wax daal ne kon dëkk dëkk bi ak njabootam fi ne sëñ bi da koo dénk ak njabootam ëllëg yoom xëyam tamit suñu borom dana ko laaj koy koo xam ne am am nga benn yërmande da nga leen sa fii sa am fi leen daane seen doole tamit ñu ñaan daal ñu ngi sàkku ndimbal daal ak ku ma doon rek nga jàppale xale yi te yàlla tax sant bi waaw sëñ ñu gën koo xam ci Baye Dieng mu mel na yow bokk nga ci responsable marchand ambulant yi nekk fii ci marché Ocass euh, lii duñu wax ne guléet xew na xewate xewate leen en tant que euh, yéen nga xam ne yow bokk nga ci kilifa yi nga xam ne yéen a nekk fii ci euh, marchand ambulant lii bi ngeen ko yëgee nan ngeen ko dundee mu metti ñu lool ndax biñ ko yëgee suñu xel dalul ndax li fi jaaroon moo tax fi ñu toll ñun dañuy xëy dem tëdd suñuy kër mais suñu xel du dal ndax lii taal marché bi kenn xamu lu ñu jaaxal la metti nañu trop ndax boo xoolee suñu mbokki marchand ambulant yi tablier yi lakkale fii ak ñi ci kii bi daanaka boo xoolee ñi ngi naan 30 cantines mais ëpp na ko man sama xayma bopp rek ëpp na 40 wala 50 cantines ci diggante bii metti na lool. mu mel ne marché bi euh, souvent su lakkee nit yi gën a sonn. Hmm. ñu ngi gën a jàpp mooy ñi nga xam ne marchand ambulant ne ñeen ñi dañoo woon ñeen ñi dem jot a ay fukki dërëm ak juróom dajale bu lakk bi ñëwee ne buuf mu dem euh, tey mu am amati amaat solution bi. ci lañ bëgg a solution bi moom benn la rek mooy organisation marché Ocass loolu moom dañ koo ña yàgg a wax ndax ku ne xam na ni nii marché bi mel dañoo sëqal ni ñi bàyyi leen seen sago lu waay neex def moo fi am nañ waxante dëgg rek te yàlla tax amul amuñu amuñu ay njiit yoo xam ne ñu mat njiit lañ wallaahi alazim amuñu ko dañoo bàyyi marché bi mu xumb lu waay neex def xam nga li ma la kenn ku ne nu la neex amul kenn ku naan déet looloo fi dañoo organisé wul rek. mu mel ni fan yee ci ginnaaw. for nañ ci weewu bëy nee nañ ci liñ wax. Mhm. nee nañ am na ndigal lu jógee ci ki nga xam moom moo di xalifa bi. Mhm. ba wax nañ ne le 24 lañ waroon a ñëw diggante li nga xam moo di marché bi. yéen lii xewaat. Mhm. lan ngeen am taxawaay waaw loolu moom ñun ñoo ko déggandoo. muy xalifa général de Baye Fall sëñ Amdi Modou Mbenda yàlla na yàgg lool tànd ak ñu ne joxe nañ ndigal. loolu bërki démb rek talaata defaat nañ ko ñoom ci kër Maam Cheikh déglu nañ bu baax a baax joxe nañ ndigal ni la 24 dañuy yëkkati corniche bi ba mu daj dem kamba ya bu ñu jógee kàmb ya troisième étape mooy marché Ocass loolu ñun ñëpp ko déggandoo loolu moom ñun ni ngeen ko déggee na ko ñëpp a dégg déggandoo mais li ci am mooy marché Ocass même bu ñuy yëkkatee mbedd mi nii dindi lépp c'est normal dañ ko war a dindi ndax nii mu mel moom jaaduwul xëy xëy man ngaa xëy mu lakkaat mais ñu organiser ko Touba ca kanam teg na plan plan bi rafet trop te buñ toppee plan bi li ko dalee 28 ba fële ba dugg mbedd secondaire li ci mën a xaj ci ay nit 3000 personnes xaj na ci. ndax diggante trottoir bi ak place yi espace su 9 la ak 10 mètres kon mën nañ cee def ay places yoo xam ne 1 mètre 50 1 mètre 50 la yu moderniser ko mu mucc ayib ñu defar ko jox ko nit ñi weer wu dee ñuy fay. mais maire bi dañ leen ko bàyyi non maire bi waxuñu loolu maire bi day wax ay tuxali marché ay gaar ay ndaamaatoog yu kenn xamul lay wax nit ñi mënoo leen a tuxal.